No! tàmbalee ko ci ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ fi yabal ko ñuy jël ci bis bi wa wàllu tele bii xam ne ñoom ñëw ak ñoom ñoo xam ñoo leen yabal ñu ñëw fii mu ne woon daal bis moom danoo ñor ñor wax képp ku fi ñëw taxaw fi yan taxawaay yi ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay ñaanal suñu mën a sonn jërë ngeen def léegi nag li nga xam ne mooy des mooy li ngeen ma doon laaj muy mbirum seen laaj ak mbirum seen naam yooyu nag sooy wax mënu ci xóot ndax daa am lu tax jëmm seen laaj daal moom li ma bëgg ñëpp xam ko mooy li gën ci nit ci moom la tàmbalee muy am wëllëre jëmm ju am kóllëre la woon lay waral kóllëre ga mooy yow mii gone sax waxtu woo mu taa dem si moom ku xool si jëmm jii jëmmi xel rek jógee rek lay xool ñun ñii suñu bopp day fa moom laa nekkoon waaye wóor na ma ni saa su mu saa xëy gis ma jëmmi suñu baalu jenn ji rek la ma daan jàpp dama ma jàpp sama jëmm jii loolee nag mooy kóllëre dox na ci ay jéego yu baax na yoo xam fekk nañu ko mën nañ si nekk li ëpp li ci jëkk mooy daana xam nit ki kenn la ma ci mën nañ nag may am na ko ne wax ndimb la ma nga dëkk suñ dug genn bàyyam na sañ am leen teeloon lu yàgg te yàlla bi gaañu yàlla doon ñu indi ab dayre kii ci ko seen daal kii Tuubaa ndimb laan moom ànd ci ña doon ña doon ña doon indi dayre bi bi nuyoo ba egsi ci moom mun ko noo sant mun ko ndimb mun ko kuuse bàyyi mu wax bàyyi mun ko yow booy bu ñu dem bul dem yi dafa yéegee ko ma ne ba mu dee moom si biir da ko wax ne ko sa bàyyi daa doon sama wàllam leneen fekk naa ko moom booba tey maa ngi bëgg lenn lu bokk ci moom képp ba ma ba ma jëfandikoo sama xel mënu ma ko mënu ma ko def su ko looy liggéeyee mën ko man ne oto laa yor dañ bi am mbaar bu bees fekk la wàcc ci jamono jooju ñii da ko ci turu ndimbalaan moomee jox ko ceeb bi defal ko ceeb ba mu fees ñu bale këram. ci ko ànd ci bàyyam ba mu gaañoo ak bi mu ñëw seen laat at at yu bare bare la loolee nit am coloré mooy def loolu am na taale boobu boo xam jeng la sant mooy defee ci ginnaaw Louga pour ba lay fàtte soo naan suñu yor am naar la ñoom ñoo dëkk ci kër bu ñu dégg wax daañu ko xam daf daan def bu suñ mosaa dem lu bu sa mosaa dem ndax mbaa mu njib saa su fa jaari góor gi ni jëli junni jox ci jamono jooja yàlla doon bi suñ toogee fexe jamonoom soppi ko buñ ñëwee fii ànd ak sama sëñ bi téye na ko ci kër gi ñetti weer ci kër gi garab ba mu ko yéeyee noonu yi mu defal la def daa jënd am mbaam kaar lu ko wutlul ko licence wut sa bor bi ñu daan Ibra Jëng nga xay ma ne ci kër yi maa ko dawalal transport en commun la yor ba mu koy defal nag kon Ibra Jëng bi na maye naa la ko yóbbaale na la yor oto bi fukki bëri ko ceeb la ci teg boole bi góor gu daan daf bàyyi joxaane ab jànkat la woon day jàng di jàng ba mu yàgg si moom ma ñëw man ma demal wàll ma Sanu Ndiaye Sanu Ndiaye Kër mi ngi may dégg ko ne Sanu ana oto man ko man ko mi ngi man ko dama teel a loo ba demee daal di teg fukki bëri ko ceeb mu teg ci fukki ko ceeb ceeb indi dikk ne ko indi ñëw naa man ko ana ana ana ceeb yeeg kii ji man ko mi ngi nii man ko man ko indi jox ko mu jox ko mu fekk bàyyi joxe ne fa muy fa muy jàngee ab lantewere bu mag la daan mu jël ceeb bi nag ko kon saa bàyyi ma xam ne génn fekk oto bi taxaw ak ko tubari koy tam ci ginnaaw lii moo doon doxee ni seen laat jëm la joo xam ne képp ku nekk ci keppaaram xam ci moom dara lu mu soof soof foo mën a deddi man seet di mën nga fa nekk ndax moom itam li mu doon wax rek mooy mooy mbiram comme tàggal ko ne daal foo dee du mënoo faa nekk léegi koy war na nekk nekkee ko loolu moom mooy jëfu ndax moom li ñuy wax ak taalibe ba tey ñu ñëwaat ci li ñu doon wax léegi man de ànd na maa ak moom ba dem ba taay dem ko sëñ Fallou mun saa dem ceer gu jëkk ko sëñ Fallou fanaan su neexee daal ma jël dàll yi ko ban yegg ci ko sëñ Fallou bu nekk see bu sëñ di nuyoo ma toog ne di leen xool ci sama seetlu lal bi sëñ Fallou daan laal daan teg tànk bu musaa daan wéet ci waxtu càmmoñ ca Fallou daan sukk nuyu ko bu mosaa sukk nuyu ko li ma gis mu sëggee ni wante kanam mooy tàllaay loo xam di di di dem sëggaayam daaw ko dindi dana mel ne comme murtu bàyyi faal ci kanam suñu fàll kon bu ne ak taali ak taali bi foofu la mën a yem doomi sëñ tuwaay yi kat min nan leen xam nañ ko lu ne waaye foofu bi ma daan gis ñu gis moom gisuma ko gisuma ko keneen ci moom ci keneen gisuma ko ci keneen kon nag moom nañ ko doole ñaanal diggante ma sëñ bii ñu wax itam muy sëñ naar lu bari jaar na ci loo xam fekk nañu ko am nañ loo xam ne ko daal wax ñu di ko dégg waaye nag fii moom day du lu wax kaay fii moom maa ngi doon nekk ni tey teeloon leneen dama ànd ak bàyyi daw di jàng dem ci kër ci kër sañ fekk ko fekk bi ñu yegsee bàyyi daw di jàng bi ñu nuyoo ba tàggoo bay dem dama ne sëñ bi kat damaa bëgg nga ñaanal lu sëñ naar nii bu baax suñ ne ko du duñ la ko duñ ko fa ñaan duñ leen ko ñaan lal ko suñ bopp lañ ko ñaan lal parce que jëmuñ caaxaan lu ma xam jox la ko lu ma xam la ko waaw waxtu boo ko di ñaan sa bopp ko di ñaan waaye doo ko ñaan lal keneen suñ bopp lañ ko ñaanal lii la wax suñu keroog loolu kon day na tegtal ci ni moom moom la fa nekkaloon fii bi dañ bi jógee dañ baalu jógee dem naa fa fekk ko fa ci këram ci ci ci biir bi dañ baalu bi ma egsee ca suuf ca suuf si guddi dama ñëw mun ma jëlal banque bi ca àll ca ginnaaw ca ca ca Pape Seng ba ma jël banque teg fa waaw jël mun ma yaataa ma teg fa fa jëwal ma ñëw. mun ma nu ngeen def napp ngeen man faa mun ma ah wàllu góor waa dara xew man ko day jàmm rek fa xaw de bàkke mun ma ah da doyeen nax ba dem sax amu ko yéen ndax suñ baax rek ci ñu démb ñële ci ñu tey ngeen ko boole woon ngeen waaye suñ baax bu ngeen xam bu ngeen xamoon suñ baax dëgg ko jàpp ni mu bokk te ni ko jàppoon kooku moom xam na sëñ baara bu baax jënd sëñ laat nag ak sëñ baara moom daa sori moom ndax mos damaa woo ni ma Basiiru man sa mbàkke ma kaay toog ba mu yàgg ma wool damay woo si yàlla sax la ma waxoon wool Baara Ndiaye mu ñëw seere bi ndax li ma bëgg li ma bëgg a wax daa dama dafa war a am seere moom woo Baara Ndiaye Baara Ndiaye ñëw toog ma toog mu toog ci banque bi nu ñaar toog suuf mun na xam lu ma lay doyee man xam ne bisub tey bii foo ma mu sëñ baara ba nim nim ba nim làqoo foo mos a jàng mu naa la fa nettali tey jii ma wax salaam loo mos a jëkk mu naa la fa nettali tey nga xam ne ba nga ko tàmbalee ba nga ko tàmbalee dañ julli keer ca lañ toll te ban fa jógee dama tëri waaye keroog fu ñu mos a jaar yegg na ci ba ni ma ki nga xam nag sa fekk lu foo laa foo laa tàmbalee nekk ni ma keroog bisim keroog lim ma defal ma boo boo mooy ab jotul kese ba jéem a toog di roy sëñ Tuubaa kenn mësu moo ko def gisa tey jii dal ma ne juróom-ñeent aw xeetam la jël ñi daa tool jël ab tong ca daara boole ko yi mu fukki leen moo leen indil indil indil jox jox jox ma leen ne ma foofu kenn mësu ko def ko gisa tey jii te xam naa ne fii nga ma fi jógee keneen dama ko defal lii la wax keroog daal ma ne mut naa defal sama oto jox ko Modou Amar di ko defar loo muy 403 ban daan yokk ca kaw moo amaat dafa def ba ne fa yegg na fekk fi ñu wéeru xaalis moom fay te nam nam wax jamono ji bokk ci fay mu daal di jël ndaw bu daal di jël ci lañ baara ne ko boo demee ne ko dama doon defar sama oto bi kat xëy na maa yónnee ne man defar ko fay néew fi ma bëgg ma bëgg mu fay suñ baar daal di koy booleeg bëgg genn ñi tey ñu jéem la jóge fii ak bàyyi ma faal si àll ko ànd martin samba ni koy jamal boo demee nga jox ko oto bi mu téye ko tabax ko marque bu mu bëgg maa jël ko ca bees moo ma moo ma suñ daala ko wax de nee na man leen boo demee nekk oto bi mu doon liggéey lu ba ko fayee ba mu mat mel na lu wàcceel na ma oto bees laa gën a bëgg nga ne ko ñaar lañu fay ñëw sëñ bi def juróom-benn si junni ak juróom lañ ci fay sëñ Ba daal génn juróom-ñaar si daal ko daal daal daal ko yónnee ba saa fee ni mbas génn bu mu ñëw lu oto balaa ñëw la daal na xam nga lu ma jublu ci bañ a jël oto bees la man ngaa mun ma boo dee dama defal sama oto ba ñu ma bañ koo jël ñu wàcceel ma oto benn ma ne ko di leen topp day mel ak ñëw doole lay doon ci man sama oto ba doon liggéey la moo ko jëlee ku ne xam ne mën a am mën a maam noo ko fayee moo tax ma ba moo tax mañ ko wàcceel oto benn la am doxee ak ñoom nee naa li toog naa fii ci ànd ak suñ dem dem dem dem ci ci réew laat mu ànd baara bi ñu ma fekk fa alak moon moom mi ma kaay dem alak moon moom ñang mu ñëw ne ko sañ baa bay moo fa ñoom ak sañ naar mu ko alak moon moom tay daa tay daa lay wax lu leer nañ sañ baar ak sañ naar boo nekk sañ yëgale foo mën a nekk nañ ma fekk indi leen leen gerte rek ndax ñoom ñaar dama leen di indi doxe si mbaa dox xar waaye leen duna si indi ñoom kon bu ma kenn yëgale si ñoom nañ leen indi ko fu ñëwati si ñoom kooku kon xam leen tegal xam na ko lan koy jàpp jàpp xam nañ jàpp ne jàpp wax na ci boppul googaat jàpp leen jàpp ko toll noonu seen laat moom kat sañ kat sañ baara fu ne fu ne fu ne fu ne lu ne defe ko lépp da nga ko ci yeneen ñi ma ciy wax am na yoo bu dama ko nettali ndax ba ma ko nettalee yeneen ñi ko dégg te bokkul ci tey laa defe ne maanaam damay damay am leen lu ma suuf te yàlla sëñ bi waa xam ne jublu ma ci dara xanaa ko ni nett loolu loolu laa ci dugg mun na maa wax ni ma sa bàyyi nii dafa baax da ko indi ci man ci jamono yi muy wàcc jébbal ma ko te boobu mi ngi dal ma ne waaye bi mu ci jógee daa ñëw jébbu dafa ma waaye mbooloo maa ko tax a waaye bon jébbu dong mën naa bañ a ñëw da man jébbale wu nekk lu jiitu woon tey te fii nag ñu bari bari jàpp nañ naan dañ naan sañ naat jébbal gi nangam nangam waaye ñàkk xam dong ko war la nag waaye moom sañ baara ci moom mooy mooy ca loo xam jébbal ko seen laata waaw boobu fi daal di سيدنا دا مخ نتي لا بني بوكو سيدنا دا مخ مو سيكي مو خون تامن كاي داف واه سيدنا دا ميرو دافال مو مو خاتي مو خاتي لا انت لا مني بوكو مانيكو داي مانيكو نباكي وانا نان كون دون لا نيانا با مون ما سيدنا دارا بو باي دوم بوكو ما سيدنا ديال نا سيدنا راسين بارا بو باي دوم سي جيجن كاب تخو تخو مو خنا ما خوار تخو كما نقول اكثر من جولي دارو جبا لا لا ما احكي لك kàddu boobu wax na ko ñaari yoon ma fekkee kere boo lijjante mbirum badaloo la ko jiir sax dama amee sañ baal dem ci kër kër sañ wat jii tey biñ dikkee ma ne ko kër sañ bi sañ fa muy nekk léegi lay day sori naa lijjante ba xam fu mu nekk door a wàcc tax yow tànk tànk du mën a coono woowu ndox ba demee njëriñu ko seen laat dama daf ko naan anam mu nekk man ko ma ca bunt kër daal di a école daal ne ma dox ndem ma jiit muy wax topp joon tam ba ca bunt kër ba mu ne ma ana man xam ne ñu ci biir oto biir oto bi ma daal ubbi oto daal xool ba seen moo di kan mu wàccal moo di kan wàcc mu daal dugg fekk ko ci waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ban seen ñu tàll seen waaye di ko nuyu wax ba weer day dugg te bi mu génn naa ñax naa ñax naa ñax sa xet bi mu ñaanee ba teg bi ubbi buntu génn daal ma ne ma ne bàcc ma boo demee nag ma wax ne ko may naa ko daal bu mu ñëwati mukk di ma seet ñëw ci kër nekkoon ñenn nga ñëw wax moo mu ñëw fekk si ko ma dikkee ma dikkee ma dikkee naa li ma la waxtaan waxtaanee fan ma bu dee siyaar ma siyaare ma delluwaat waaye moom bu mu ñëwaat loolu may naa ko mu ñëw wax ko sëñ Baara waaye mosu ko def ak taalibe bi muy ko lool keroog bi mbirum badaloo mi amee man noonu ko def léegi ci laa ko ne lam la may nag tey bay mu jël ko mënoo ko ñàkk jël tey tey daal nag ma may ma dem te moom wax ko ne ko yaa ngi fi moo nee na ñëw nag ma ma door laa bu ñëwee ma xam ñëw baa demee teg ko ci biir néeg ba ba nuyoo moom ba noppi dem naa wax ne ma oto nga yor man ko waaw waaw mu ne ma foo ko gaari man ko ci buntu kat mun ma gaawal man buntu bi nag bi jigéen naa fi laa jaar kat te boo xamee maa la fa jiit kon nga ay ok laay nga jot te ba ma yegg si boo nee sa ñi ngi ñëw ak bi oto bi ko wax ne si buntu benn la mu ubbi buntu ban ak moom ak sa ñaar ñoo na si biir ak sëñ baara ñun ñeent ak sëñ baara bëgg a wax man ko sëñ bi da ngaa war a bàyyi ma wax ndax yow mën a wax ak moom te man xam naa li nga bëgg a wax sëñ bi ne ko bàyyil Basiru wax man mën ka man moom ma door koo xamal ne ko da di ab taalibeem sax dañ ko tooñ tëj ko yaakaaru ci kenn ku dul yow yónnee woon na ca waaye yónnee ko doy ko moo tax mun na ñëwal boppam dafa bëgg daal koo koo ci dimbali la may segal mooy waxal ma sëñ Baar ne ko guddi tey jii ñu nekk jii ñu jëm danaa fanaan Dakar su dama tegal sama tànk Tuubaa du badooloo daal badooloo daal génn mbaa ma xam bis buy génn waaye du ma fa jaaraat ba mu fa jógee moo ma neex li ci làmmiñam ni ma minuit laa fa nekk ci juróom-ñaari mètre trente woo naa ne ku ma dikk ci ne jéngo ne demoy bokk mu ñëw ma ni leen bakkane abdou diouf dina nekk ci kër Karim Fall bii de bada dana génn mbaa ma xam lu ko téye mu mënta ñàkk génn ñu ba tawaat ak jàmm mu ne bu tawaat bu ngeen ko woo bu ngeen ko bàyyiwul tawaat jooy jëlaat fanaan si waat nekkaat ñoo ko talaata bu la badaloo joxul bu la joxul loxo ci moom la xaafa jooy nañ ko bàyyi ci suba ba taxay jaar daara si bi mu boole ko daam jóob ak ak ak kii euh, waaja mbaay servicen mbaay ñu ñëw fekk ba fii seen baa ni boo demee ànd leen bësi dem seen laam boo ma déggee ba ko sëñ joxe loxo dafa ne bade ñëw nga mun ko alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bëgg sëñ baa fa ñëw rek man sama ajo fa ñëw loolu la ko jaar tegal keroog kon nag na leen wóor ne seen laat moom mu ngoog kër gu ne nag noonu la fa daan doxee ndax daf naa wax ci làmmiñam ni ma yow de xanaa jaaxle nga ba jur keroog sa maam jógee man ko ah Mbàkke jaaxle wu ma de mu ne ma waxal dëgg mënoo ñàkkee jaaxle kat ndax foofu mu saa jógee dama ñëw ca kër ga taxawu la samp samp samp samp kaa fay samp tàggu tàggu loolu ñibbi te keroog sa maam jógee ak say samp tànk jaar ko ci kër ga teewuma ca teewuma ca teewuma ca ban ko taxaw kon mën a ci ñàkk gaaw naa la ci leeroon nañ nañ loolu leer nañ laa ba ci wax tey ne ma sama mënuma ko taxaw mënuma ko taxawee mënuma ko def ne mënuma ko tiim mënuma ko taxawee mënuma ñëw ci kër gaa tam du ma fa ñëw xëy na laa fa def daa fa def waaye moom du ma ñëw du ma du ma fa taxaw téem na xaatu la yebal moo ko taxawoo waaye kër ga ba bis tey jii kër gi baari kër daa dugaatu ab tànk ba ni mu fi jógee moom xam loolu la wax dama mënu maa ñëw ci kër gi mënu ma ko taxaw mënu ma ko tiit kon kooku àggal na ko ko bi xam na toll na ci moom te man li may nekk li day laata ma wax ci ko ma ñu boppam waxuma wax jàmbur kon diggante bi sëñ Ba kon sori woon naa lu baree bari sax daara ji bi jiite na wax sëñ laat kenn xamul mu keroog ba mu ñëwee ñu ubbil ko nekk ba sëñ daar sëñ daar mi di biir fale dal ba mu bëggee lu man man nañ nañ nañ nañ nañ nañ nañ fee si ndaar nekk ñu ngi si ndaar saal bañ jot fa lañ teg ab filaan doon nuyoo bunt bi mu toog di nuyu nit ñi jàll. ba mu ko ban delluwaat ba ca biir ma di ko bës saa jekk seen tur ñëw ba man man mbaa xam nga man doo fàtte man ko ah man mbaa man doo fàtte di gën a gis nga fi doon nuyoo bu doon fajar lañ ko tàmbalee ba jant bi soog kenn ku gën ma kii nangam la sant diw la tudd. bàyyi di woy bàyyi di woy ndeyam ba ca ba ca di soog bu dee weer bi dee fii ñu dee waat toogaat ku ñëw taxaw boo xam ne naa ne di woy sa bàyyi di woy sa ndey naa ngi ma ko sant dëkk saa ngi ma yore ba ñëpp ba jant bi sa waat du ma ci fàtte kenn man amul lu may fàtte moom la keroog ci kër suñu baara googee xëy na moom daa fonk kër suñu baara te booba doomam la doon war a joxe mu ñëw di ko joxe sa boppam mu soxna may ma ak ak ak soxna Ami Jenn sama moom rakk seen lépp nii karam moo leen léemul loxol bopp ñu moo leen wax léemul léemul bopp léemul bopp ci keneen laa seen def def ci keneen baara yeneen kër am noonu daan def am na maag moom day dem fu ne waaye nag fii moom fii mu fi daw ma ko fekk daw ma ko fekk moom li muy jàpp ak nitam bokkut ak keneen ñun ñaar ñooy ñëw mbaa boog mbaa boog fekkee ma ko man xaw ma ko. dem daal nit la ko xam ne moom coloré amul keneen ku ma ko xam leen keneen ku ma ko xam leen xaw ma ko. li ñu yàlla dimbalee nag bi mu jegee bàyyi fi ko andi ci itam ba tey yoon woowu dong laa gis ko dafa dox. ndax sëñ si li mu ne képp ku ko andi ba sëñ la jógee ak say yaa ngi noote ci këram kenn nga naan fekk sëñ bi daal. defal naa defal naa loo xam ne xam nañ suñu laa defal ko mbaa mbaa mbaa boobu su ma laa noonu defal def naa la ne ko ñëpp tàmbalee ci man mii wax ak ñoom ndax yéen ñii ma dëkk ak ñenn ci xam ngeen ci dara yéen ku ne xam na ne sëñ Siidi waxtu bu ma ko fekkee mu toog day mel sëñ laa laa fekk mu toog na ma naan jàpp la may jàppee la ma naan wax la may wax la ma naan def la may defal mu sama ci seet waaw waaw mu taam mu taam waaw kon nag jërë ngeen jëf na mel ne suñu laa mel noonu war nañ la kon jërë ngeen jëf kon nañu baax këram nañu yéen ñëpp baax na